gëm ñëpp déggoo naag ñëpp lii may wax nag yàlla tax ma di ko wax lii muy wax nag yàlla nekk tax di ko allahu huwa almumiitu huwa almuhyi nee na yàlla dundal mooy rey huwa alxaafidu warrafia yàlla yëkkati mooy wàcc huwa almuizzu walmuzillu yàlla teral mu teral mooy toroxal huwa almuati huwa almaani yàlla joxe mooy xañi kon nag lu ma war lu ma wax dama koy wax ci yàlla kese moom lu ma wax ci yàlla kese la koy wér maa ngi leen di dégg kenn ku nekk yemal ci nga war a yem.